Assalamualaikum. Akhwan barangko. Nada barangko. Barangko na kayiti. Nakambo kifaras nun Jeff. Mayaw bayang si Jam. Wala asim na munala. Juan am nga une minute amga, awa awaa bay metti ah man de Juan dama toog rek dégg ñu ne awaa gouvernement bi dañoo bëgg a annulé projet ba la ci lan xaw ma ndox Sambata dala ladeg mana ko nenan ne nelen am nan de wallahi ashi waxal ñu wa ci da yawo am nan am nan courant ba doyal am nan connexion ba doxal ba doyal internet internet bi am nan ci ba doyal de ne ko ndox ma ngi wel wel amnan am amnan courant am nañ ndox am nañ internet lépp ak jàmm yéen daal dem leen ko ak jam rek dégg nga bu kenn wax ba ngeen di la ko walaay achib gouvernement bi ñoo xorom rekk ba